ginaaw bi ñu nemmeekoo ni fan yi ci réew mi dañuy faral di faagaagal xale yu ndaw yi ci reyin bu ñaaw ñu wàcc ci askan bi ngir waxtaan ak ñoom naka nga gisee lool. waaw loolu sàggante par rapport ak gouvernement bi la question de insécurité ba pare tamit nit yi tamit jàngatuñu alxuraan dañuy topp ay loge yoo xam ne affaire sacrifice yoo xam ne loolu lañ gëm moo tax bu ëllëgee moom dina métti trop dañoo wàcc seen yoon daal. ah loolu bëri na de loolu moom bëri na moom temps yi dama koy dégg si rajo yi da koy dégg rajo sociaux te loolu du yoon. xam nga am li wax ji daal dañ tee xale yi seen doom yi ñiy jàngi ñu yónni seen jànk yi wala seen frère bu heure waaj ñu dem jëli leen man daal loolu la gis. mais moi je crois que euh, la police euh, ça vient après c'est après l'action il vient c'est le médecin après la mort moi ce que je, je les policiers ce que je les considère comme médecin après la mort s'il y a mort après il vient visiter le corps moi ce que je dis ils ne font pas peut-être euh, c'est leur manière de de réagir qui est qui est très lent selon moi suñu borom dafa ne ku rey bakkante tey ko nañ la rey bu fekkoonte ne ku rey doomu aadama ñu rey la kon yaakaar naa ne rey te tey dina fi jóg mais boo reyee dañ lay jàpp dem tëj la di la indi lay añ ngay lekk ka naan rey du fi jóg mukk ndax da lay ne boo reyee duñ la rey mais l'islam lu mu wax ku rey te tey ko ñu rey la nguur gi nag bu fekkoonte ne loolu la def ku rey ñu rey la rey dina fi jóg. élection présidence bu amee rek ñu naan sacrifice yi day bëri ay dañuy day ay puudar rek lu ne ngay dégg mais loolu moom du yoon moom maa ngi koy ñaawlu te dëkk bi dëkk musulman Sénégal réew dëkk musulman la loolu moom war a fi am moom. waaw loolu xanaa di ko ñaawlu ndax euh, képp koo xam ne ab jullit nga rek danga ko war a ñaawlu ndax euh, suñu réew mi dafa doon réew moo xam ne dafa baaxoo woon euh, di defar. gëm yàlla waaye bu ñu xoolee léegi ba ci biir dañuy xool mën nañ ni gëm yàlla gi maanaam daa mel ni dafay jeex ndax euh, lu ñu daan dégg ci yeneen réew yi ñun de jamono bi ñuy doon gone ñu daan dégg këtt bopp yi wala bu ñu nee la dëkk sàngam nga ne du fa dem ndax foofu boo fa demee dañuy këtt bopp loola moo dellusiwaat ndax euh, loolu yëpp man ci sama gis-gis utum alal mee ko waral. jàpp naa ni nit koo xamante ni mu ngi rey nit yaakaar naa ne ànd ak am na loo xamante ni nii leneen loo xamante ni mu ngi koy laal loo xamante ni moo koy tàqali ko xelam ndax dañuy wax ni benn rek sàngara mooy ndeyu ñaawtee yi dañuy wax ni nit ki bu ko jëfandikoo mën na def lu ne mën na dem sax ba séy doomam ndax jëfandikoo gi mu ko jëfandikoo dem na ba tàqalikoo ko ak xelam waaye nag am-am bi dee am-am moo tax ñu koy def am-am boobu noonu mën nañ ko am tey suba yàlla suñ borom rey leen. non mënuma gëm ne drogue bi la loolu franchement mënuma gëm ne mënuma gëm ne drogue parce que ki ñu ne jàpp nañ ko Touba kooku kilifa la kooku mag la xam nga gëw ma ne dafa dopeewu loo xamante ne la mbiri boppam la wala ñu sant ko ko fay ko xam nga da ngay gis koo xamante ne day toog fële moom bëggu si feeñ borom alal la exemple ñu sant ko loolu mu dem digal koo xamante ne nii amul lu mu ndekkee xam nga amul dara boo ko joxee benn cinquante mille franc nekk indil ma benn xale da la koy indil. wàllum formation moom dama si dama koy dégg rek mais xaw ma si lu bëri daal mais daal xam naa ni affaire sacrifice la te alxuraan ñun ñi euh, lu ñu jàng gisuñu si loolu ay affaire sacrifice ak xale xale yu disparaître moo ma ne la part de responsabilité bi question la. question tamit gouvernement bi la tamit parce que insécurité tamit moo moo indi loolu yëpp daal ak jaxasoo boobu. éducation ci kër la école da nga fa dem pour jàng fa mathématique science SVT mais éducation dëggantaan mu ngi ci kër la doom doo xaar ba mu màgg nga koy yar doom bi nga ko ëmbee nga koy yar tey boo ëmbee doom di dem sabar sa doom mi ngi dem sabar te xamoo si dara. yaru zahir boo gis am na yaru baatin tamit am na. xale da nga koy yar mu xam diineem xam la moo ko war xam lu mu war a def xam lu war a comporté woo tamit. te tamit nit yi tamit seetlu nañu léegi euh, occidentaux yi suñu base lañuy gën a yàq ñuy deg ay film yoo xam ne da ngay rebatal ay sacrifice ak yu kenn xamul loolu yëpp soxlawuñ ñun ñu base bi la ñuy gën a yàq moo foo ñu delluwaat tamit si cosaan dem jàng ji alxuraan jàngal xale yi diine ñu xam tamit lu leen wat ah du sàggante sax de waaye xale xale moom xam nga boo ko bàyyee rek mooy loolu ñu ngi leen di yar de xanaa daa am loo xamante ne moom lii moom kenn xamul la daal laisser un enfant qui qui mineur euh, le laisser comme ça sans défense euh, je crois c'est la cause principal c'est la, la responsabilité des parent ah waajur yi moom dañoo sàggen moom na doo jël doo jël sa doom naan ko demal fooy doo xam si lu mu nekk bu ñëwee ngay door a xam ne ne sa doom ñor bu ñëwul doo ko gis ngay toog ba dégg ay problème nga dooru jug naan da ngay seeti sa doom mais loolu du yoon tamit léegi nag man dama bëggoon su dee état bi moom bu fekkee moom moo ni moom état la moo ñu garanti ñun ñëpp moo sécurité bi mu bàyyi ci loolu xel parce que ay rey xale ay reyante noonu non yaa ngi dégg chaque jour ñu nekk ci rajo bi wax loo xam ni dalay leer ni yëkkati na xol ba nit yaakaar ni dootul am ba lu mu gis dugg ci politique bi bari na boo gisee tey yaakaar yi tas ba reyante yeeg yu demee noonu bari lii moo ko waral.